yéenekaay bi kon loolee la xëyee ci xëtamu njëkk xëy nañu xamal it ne Iba Thiam na xale bu jigéen la boo xam ne ci l'appartement la ñu ko fekk nee nañu dafa dorogeew bu yëf yi ëpp ko doole lu aju ci ñeenti xale yu góor teg nañu leen loxo am na ñaari yu jigéen ñoo xam ne it ñu ngi leen euh, garde à vue lu aju ci euh, Vox Populi dikk ak ñun ci euh, mbirum xale bu jigéen boobe di Iba Thiam ak ni nga xamante ne kon noonee la ñu ko fekk yéenekaay bi jàpp ne confinement la bu mujj ci bakkan bu rot ci diggante yi nit ñoo xamante ne ji seeni wayjur borom mi alal lañu mu di fils de riche ci almadi la xewe grand place dikk ak ñun ci mbiri couvre-feu ak confinement ju yoo xamante ne ji daal ba moytuwul dañ koy def ñii bàyyi ñi mu di confinement partiel Sokosim industrie nee ñu mu ngi jàppale kër yi fële ca baar ñi ak ci diwaanu Tëngéej le quotidien dikk ak ñun ci programme résilience économique ak sociale nee na Macky Sall pexe ya mu doon nas teg na ko ngir jàppale réew mi ci jamonoy euh, euh, coronavirus gi la tribune dikk ak ñun ci Iba Thiam di benn xale bu jigéen bu faatu ci soirée bu amoon fale ci Almadi yéenekaay bi ne ñu la nga xamante ne ji moo sooke yëfi daal dorogang cay xeeñ mooy li la tribune bind ci xëtamu njëkk Sud Quotidien dikk ak ñun ci riposte euh, maanaam xeex bi kon kilifay réew mi fas yéene xeex ak coronavirus bi ci wàllu koom geek dundinu askan week yu ni mel nee nañu Macky Sall na plan boppam enquête dikk ak ñun ci vaccin yoo xamante ne ji dañuy ne day faj coronavirus te ñu koy tent euh, jéem a kon testé Afrique ñu bari ci déndu Afrique bi ñaawlu nañu ko ci ni ko enquête dina kay xëy bindeekoon ci xëtamu njëkk libération dikk ak ñun ci faatuk xale bu jigéen bii di Iba Thiam am na lu ca leeru ci ni ko waxee mort suspect ci soirée privée boo xam ne amoon na ca Almadi dem sax ba xamal ñu ne yëf yi ba muy soog a xew ca gendarmerie bu Ngor la bi woon ci ay loxoom nangoo nañu ko ci ñoom jox ko waa brigade de recherche bu Faidherbe sur soit dikkaat ñun ci fële ci diwaanu Touba juróom-benn commerçant yu ñu tey ci garde à vue fukki chauffeur ak benn yu allo Dakar yoo xam ne defeere nañu leen ndax nee nañu dañoo wàccewul ak li ñu santaane ci tukki beeg dem beeg dikk bi yéen kaay bi gis ne procureur bi taxaw na fële ci diwaanu tuubaa ndax am na liggéey Les ko dikk ak ñun ci Iba Thiam mi faatu nee nañu da doon wàccu deret mujj gi mu daal di daanu jaare ca faatu journal bi dikk ci ak yu baree baree bari bokk na ci Dame Amar mi ñu ciy tudd Louti Ba Jibril Njoogu Basel ñu gën koo xam ci neex Fatima Rigal ak benn tubaab boo xamante ne ji jigéen la dañ leen a arrêté woon euh, ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di waaj a arrêté yéen kaay bi xëy na ci dellu siwaat ni ko Vox li waxee Rougui Diawo di doom ci Baba Diawo euh, mujj nañu ko bàyyi gannaaw bañ ko déglu en tant que témoin sunu lambu dikk ak ñun ci kàddu yu mu nangoo ci Abdoulaye Makhtar Diop muy taxaw arbitre ak di leen jàppale nee na histoire préavis loolee du mbir la moo xamante ne ci daal mënees na cee joggi maanaam du du du du lu dëgër. jeexaleeg stade mi ak ñun ci tey ki mu tànn moo di Kalidou kulibali def na fii ci équipe nationale bu Sénégal 42 sélections benn passe décisive maanaam joxe ñu dugal Kalidou Koulibaly yéen a kaay bi jàppee ko miiru weñ boo xam ne ñaari jéggi ko jàll du yomb sëñ Fall. Mouhamed Ndiaye. nelaw allo waa nañ ne tuuti lu xew guddi na de yaay soo ma seetaanee rek sama se coronavirus en Afrique à la date d'hier 8736 euh, cas ont été confirmés dans 51 États de l'Union africaine. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 399 personnes sur le continent. 747 patients sont guéris. Les trois États les plus touchés sont l'Afrique du Sud, l'Algérie et euh, l'Égypte. Et puis en Guinée-Bissau, 18 cas de coronavirus euh, ont été confirmés. 60 autres cas suspects sont euh, présentement en observation. Euh, Noah Mankali, donc, euh, que nous allons retrouver peut-être euh, avant la fin de ce journal international. Et puis notez qu'au Congo-Brazzaville, le couvre-feu et le confinement sont entrés en vigueur depuis quelques jours. Mais problème, les populations vivent la situation dans le noir. Elles sont à des coupures et délestages d'électricité. le début du confinement, le 31 mars dernier. Nombre craignent que leurs provision se retrouvent à la poubelle. La société énergie électrique du Congo évoque des perturbations sur une ligne haute tension reliant Pointe-Noire à Brazzaville et promet d'améliorer la desserte une fois les travaux terminés. En Tunisie, le Parlement a donc décidé d'élargir exceptionnellement les pouvoirs du Premier ministre pour une durée de deux mois. Elis euh, Farfar pourra donc euh, ainsi promulguer des décrets-lois afin de lutter contre la pandémie euh, du Covid-19. En Grande-Bretagne, notez que le Premier ministre euh, Boris Johnson a été hospitalisé hier. Il doit subir euh, des examens supplémentaires. Pour rappel, Boris Johnson a été testé positif au Covid-19. Amadou Sabarba.

informations épidémiologiques sur l'évolution du Covid-19 en Guinée-Bissau, Toumane Baldé a révélé que l'équipe de réponse rapide du secteur autonome de Bissau a suivi 460 personnes qui auraient probablement eu des contacts avec ceux qui ont déjà des cas confirmés de Covid-19 en Guinée-Bissau. Selon Baldé, de ce nombre, 60 personnes sont soupçonnées présentant des symptômes de coronavirus, desquels 10 échantillons ont été prélevés et envoyés au laboratoire national où sept échantillons ont donné des résultats négatifs et les trois autres échantillons non concluants ont déjà été obtenus. D'autre part, Baldé a révélé que le traitement qui est soumis aux patients atteints de coronavirus n'est pas spécifique. Chacun est traité en fonction des symptômes qu'il présente et garantit qu'il n'y a toujours pas de patients présentant de graves problèmes de santé. Le gouvernement de la Guinée-Bissau, on le rappelle, a réglementé de l'état limitant certains droits et libertés des citoyens dans de la lutte contre la transmission et la propagation Un document qui de l'État bissau-guinéen Oumassi Sokho Mbalo. Nouamenkeli Bissau, RFM. On termine le Tchad Babacar. Le président Idriss Déby a annoncé que Boko Haram a été chassé de son territoire. Déby qui s'est rendu

Moi, je, j'ai rappelé hier l'avoir connu il y a 55 ans, euh, Radio Saint-Louis d'abord, avant Radio saint parce que Colbert avait commencé à se mouvoir avant de se faire un nom euh, la, dans la presse sportive. Euh, tellement vrai qu'il s'est aussi orienté au tout début vers la touche je me souviens peut-être une ou deux fois, euh, le centre. Alors, c'était quelqu'un euh, qui était ambitieux, qui donnait l'impression partout de faire de la dilettante, euh, qui avait réussi le tour de force de se faire des amis euh, dans presque toutes les couches. En un mot, c'est un homme transversal. si transversal que je, je disais à quelqu'un, euh, Goldberg, il n'a pas d'âge. Il a l'âge de son interlocuteur ou peut-être de ses, de ses ambitions. Euh, du coup, il a réussi partout où il est passé à faire l'unanimité. Il était devenu ou le système nerveux, comme on dit, de l'actualité saint-lusienne, ou le bulbe rachidien de cette activité du côté de Saint-Louis. Quand Golbert ne touche pas à l'événement, ce n'est pas encore un événement. Bon, c'est quelqu'un euh, qui s'est réalisé vraiment tout seul par sa volonté de bien faire, tellement vrai qu'il aurait pu encore rester à Radio Saint-Louis. Mais c'est quelqu'un doté de carnet d'adresses insoupçonné. C'est le président d'alors, le président de la République, qui l'a accompagné euh, à cette radio à laquelle il aspirait, Abdou Il est venu euh, inaugurer cette radio. Goldberg, c'est quelqu'un de difficile à maitriser comme on dit, dans le sens de la connaissance pure et dure. Alors, il est comme, on, comme il est. C'est quelqu'un qui a été réalisé euh, par, euh, comme on dit, le Tout-Puissant, euh, comme disait l'autre, jël leen ma sinon ma jaaxal prenez-moi comme je suis sinon vous perdrez du temps à vouloir savoir qui je suis. Lay Diaw, merci pour cette chronique ce matin, chronique hommage à Alioune Badara Diagne Golbert. 6 le micro-trottoir de ce matin sur euh, la prolongation du de l'état d'urgence et du coup du couvre-feu. Prolongation euh, décidée euh, samedi euh, en fin de journée par le président public et donc euh, conséquence jusqu'au 4 mai prochain, prolongation d'un mois, jusqu'au 4 mai prochain. Toujours état d'urgence et couvre-feu entre 20h et 6h euh, du matin. Micro-trottoir sur la question. réalisé à Dakar par Oumar Mbow. Mais de mon point de vue, donc ces mesures ont permis de, de, contenir la propagation du virus et à ce titre, il faudrait naturellement prolonger la durée jusqu'au mai et même au-delà, donc jusqu'à ce que le virus soit entièrement éradiqué de, de nos frontières. Donc après économiquement, il y aura naturellement des conséquences. Donc ça euh, ça va être très difficile, mais des mesures ont été prises, on espère que dans leur application, donc euh, va être façon rigoureuse. 2016. C'est une très bonne idée, euh, la prolongation du couvre jusqu'au mai. Non seulement le virus euh, ne se propagera pas, donc aussi le, le, personnel de santé pourra faire son travail comme il souhaitait que la population reste chez soi. Voilà, c'est une très bonne idée en tout cas. La prolongation du couvre jusqu'à la date du 4 est Une très bonne chose parce que nous avons tous constaté que depuis que cette décision a été prise, crise, le nombre de cas se diminue. Les citoyens aussi se déplacent de moins en moins. Ils le font uniquement qu'en cas de besoin. Les contacts humains aussi se diminuent et que tout cela favorisait la contamination. Donc le fait de prendre la décision d'aller jusqu'au 4 mai pour euh, euh, observer le couvre-feu est une très bonne chose à mon niveau.